jër ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a te ñu nam ko jukki daañu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ñaari doomi aadama daal nañu toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari cas positif la ñu am juróom-ñeent fukk kaa nag ci ñoom nag di ay cas contact waaye itam jàpp leen ne mbokk yi juróom fukk yi ak ñaar nag ci ñoom nag di ay cas communautaire di ay doomi aadama aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xam ñu rek fan la ñu ko jëlee jamono yi may wax ak yéen mbokk yi jàpp leen ne li nga xam ne moom moo di cas communautaire yi nag ñu gën di bari fii ci réew bu euh, Sénégal génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di jibi jool nag ak ñeent ci ay ñoñom nag yoo xamante ni ñoom ñoo bokk euh, famille euh, ca réew bu États-Unis nag ginnaaw ab lakk-lakk woo xamante ni amoon nañ ca makkaan wa nga xam ne moom lañu ñu nekkoon enquête bi nag li muy jot firndeel di loo xamante ni sàkkute fukk doomi aadama la la ba tax itam consul général bu Sénégal ba nga xam ne moom moo nekk ca New York ak itam euh, maire bu Denver nag jamono yi nag demoon nañu foofee ngir saytu mbir mu ni mel waaye itam li mu xamle bokk na ci rek daañu topp mbir mi euh, ba fu yoon yem ñu daal di ko fay euh, yemale li nga xam ne nag moom moo di mbir moomee nag lépp ci yoon lay mujj lépp lu soxal wàllu offre bu opérateur bi di Orange Sonatel nag jamono yi boobaak léegi xam ngeen ne mbokk yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di aji plainte ak yu ni mel nag ki nga xam ne ah, moom moo fi nekk tëddee fi njaaxaandaay di ARTP nag di sàkku ci Orange Sonatel mu daal di dakkal lu ni mel fii ak ñaar fukki fan ak ñaar ah, ci weeru juillet bi ñu ah, nekk kooke ngeen gis mbokk yi ci li nga xam ne moom moo di écran bi di Aliou Sané nag di coordonnateur bu mouvement bi di Y'en a li mu bëgg moom moo di lu ni mel ñu daal di koy dakkal ila abad mu daal di jeex fii ci réew bu Sénégal coowal ñetteelu mandat ci réew xam ne euh, moom moo di ca république bu Guinée ki nga xam ne moom moo di Alpha Condé nag li mu xamle moom moo di lu ni mel ñi nga xam ne ñoom ñoo di militant yi nag ñoom ñoo ko euh, sàkku ba tax itam ñu daal di samp ab laaj ndax lu ni mel euh, du indi li nga xam ne rek moom moo di ab coow lu mu ci mënti doon Aliou tin nag fondateur bu Africa Jom Center dina ci indi ay leeral ci waxtaan woo xamante ni sekkoon na ko ak suñu naataango fii ci télévision Futur Média mbokk yi lu ni mel nag daañu ci toftal yéen a kaay ma dikk ñu yaatal ko asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuy war leen ci gën gi nuyu xibaar yi nuñ ko junjee woon ca bopp ba noonu lañu koy dooree di mbas mi ak tolluwaayam fi ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ñaari doomi aadama daal nañu toftalu eh, ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari cas eh, positif la ñu am mu mel ni itam juróom-ñeent fukk yi nag ci ñoom di ay kaa contact juróom-ñett fukki ak ñaar ci ñoom itam di ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xam xamante ni am nañu mbas mi te xam ñu rek fan lañ jëlee lu ni mel duñ ci sori dañuy teewlu euh, docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé ñu seetaan. ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak benn test yi ñu def téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci juróom-ñeent fukka contact mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci mbas mi. fekk ñi leen ko wàll mooy dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom-ñett fukk ak ñaar ñaa xam ne ay cas communautaire ñooñu dañoo jot ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll juróom-ñett fukk ak juróom si ñi ñu entré woon wér nañu bu ci yàlla àndee dinañ génn tey fanweer ak juróom-ñeent ñu nga ci réanimation ñaari malade ñàkk nañ seen bakkan ba si démb alxames juróom benn fan ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ci kaa bu njëkk ba senegal wàññi na fukki junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom kaa yi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaari junni ak téeméer ak benn wér nañ ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñàkk nañ seen bakkan mu des ñetti junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci hôpital yi walla ci loxo docteur yi Euh, ñu dikk ba tey ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu euh, Sénégal xam ngeen ne li nga xam ne moom moo di dogal yi nag euh, boobaak léegi dañu ko yolobaloon ni ki tey jii nag joriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew moom Aly Ngouille njaay dina janoo ko way taskatu xibaar yi ngir indi yeneen i dogal yoo xamante ni daañ ko teg ngir rek li nga xam ne moom moo di coronavirus doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku fii ci réew bu Sénégal wala boog wàllante bi doon loo xamante ni daan wàññeeku lu ci mel ni nag rassemblement yi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku ci li nga xam ne rek moom moo di tefes gi ak yenn ci ay barab yoo xamante ni ay doomi aadama dañu fay daje dañ ci jël ay matuwaay ba mu mat sëkk lu ni mel nag mbokk yi xam ngeen ne uh, ci coobu rek uh, njiit bu réew bu uh, Sénégal moom Macky Sall ba tey jàngoro ji di coronavirus mbokk yi professeur Bekay Fall di médecin colonel nag di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñu gën a am ak dal ndax xam ngeen ne ndaw yi ñoom ñooy rek daal di jël li feebar bi di ko indi ci makkaan ni mel nag di sonal lool bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, mag ñi ba tax itam muy sàkku rek ci askan wi ñu daal def kéem kàttan ngir rek lu ni mel doon loo xamante ni euh, dina ko mën a dakkal dañ koy teewlu moom nag moom moo nekkoon ganuk info ñu teewlu ay kàddoom. nga nekk jeune vingt ans trente ans quarante ans mbir mi dal la mu bett la nga assuré woon sa bopp. bu ñëwee hôpital di la defal bilan ñu gis ni kii kat amoon na lii lii moo tax virus bi ko am na du ñu cité tour mais am na ñu ñu perte noonu ci ay jeunes ay xale yu dem yu ñàkk yu seen parent ñàkk bu ñu fowee feebar bi bu ñu ko fowee bu ñu jàpp ni ñi ñu ñàkk ñu suuli leen rek la ñu ñàkk yàlla na leen yàlla yërëm déedéet li ñu ñàkk mooy tant que virus bi mu ngi fi ni ñu libre woon di respire ni mu ñu neexee dañu koy xañ ñu bëri ñu ngi perdre seen liggéey bu continuer nii entreprise yi dinañ continuer dàq loolu ci bokk xew presque amatul bu continuer ñi doon gagné dara ci xew yi duñ ko amati kon ñoom ñëpp ñàkk liggéey ñàkk seen liggéey wala am liggéey encore te mën ko ñàkk demee parce que entreprise bi liggéeyatul hôpitaux yi defatul presque recette ñëpp ñoo am intérêt ne serait-ce que côté boobu parce que ku am actuellement loo jàpp bu mbir mi continuer kala doon fay du ko mën même état loolu beneen raison la bu war a tax am jën ci ndar doon doom bu góor bu leen ni sax naam jën bi ñu ngi koy bu baax a baax mbokk yi nag euh, Bécaye moom professeur Bécaye Fall nag kàddu yooyu nga xam ne jibal na ko ministère de la santé euh, ba moo ñu euh, baaxee yooyu lay image mbokk yi dañuy ñëw ba tey ci mbas mi mën naa ko dippee noonu ndax itam jaaykatu jën yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ndar géej nag ci dëkkuk maam Kumba Bang Bay nag lu ñu xam le moom moo di jamono yi dañoo exposé maanaam bés bu nekk nag mën nañ jotee ci li nga xam ne rek moom moo di eh, jàngoro ji di coronavirus waaye tam mu mel ni nag eh, jamono yi li nga xam ne moom moo di eh, njëgub jën bi nag dafa gën a yéeg dañuy teewlu reportage bi nga xam ne Ousseynou Diop ak Habib sekk def nañu ko. am jën ci ndar doon doom bu góor bu leen ni sax naam jën bi ñu ngi koy gis waaye nag fii am fi jën moom dafa jafe lool astugay jaaykat la ci marché ten jigéen nee na la mu daan jënd juróom-ñetti junni léegi fukki junni ak juróom benn moom lay def ngir mën ko am jafe na moom jafe na ba wees jafe ndax jën yi tey ñoo ngi ko jëndee kees ku nekk fukk ak juróom benn te bu jën amee ñoo ngi ko doon jëndee kees juróom-ñetti junni tey ñu jaay ñu ko fukki junni juróom benn boole jafe beneen jaaykat boo xamante ni fekk nañ ko ci marché bi moom ay songoom nee na li tax jën bi cher mooy mool yi dematuñu géej jamono jile te sax yaabooy bi nga xamante ni doon nañ ko am ci juróomi junni ci kees gu ne léegi ngir nga am ko force nga def juróom-ñetti junni ak lu teg yaabooy bi noo ko daan jëndee vingt cinq mille trente mille léegi noo ko jëndee quarante deux mille cinq cent moom lañ koy jëndee léegi ndax xam nga boobu ñàkk te jën bi rek moo war a te euh, yaabooy bi métti nii métti si ñun Fatou Gueye cliente la ñëw ci marché jigéen moom dafa ñëwoon di wut jën boo xamante ni moom la war a ndawaloo ci këram waaye nag li mu gis mooy fii lépp dafa cher te li ko gën a waral bokk na ci feebaru coronavirus bi. kenn mënatul am jën bu normal moom ci digg dar gi nan ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ñu jéem a amar yore géej gi jàppale am mareyeurs yi ndax jën yi yomb nit ñi mën kaa lekk. coronavirus bi tax na kenn amatul dara kon bu ñu ci boolee marché bi metti moom dina metti trop ci nit ñi fiy dund. ci feebaru coronavirus boobee sax ak fukk ak benn cas communautaire yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci bisu aljuma bi ci ndar tax na jaaykat yi am tiitaange ci seen i kàddu jaaxle sax la ñu def. Ah, am nañ si njàqare parce que lu tax ñu am si njàqare mooy ñoo ngi nangu xaalis ñoo ngi joxanteeg nit ñi loxo ñoo ngi waxanteeg nit ñi. moom daal li ñaan yàlla rek ñu si mën a dimbale dimbale si mbooloo mu jullit ndax fii ñuy toog nit ñi ñëppay dugg ak a génn te feebar bi mënoo xool nit na kii am nag. am jën moom jamonoy coronavirus bi ci diwaan Ndar géej nekk na lu jafe mool yi dañu wàcc demuñu géej yaabooy bi nga xamante ni sax ay jamono ñett yi ñaar fukk lay jar léegi ngir nga mën a am benn force nga génne fanweeri dërëm ngir mën ko am. jërëjëf Ousseynou Diop cant ak ngërëm ñàll la mbokk yi dañuy wax euh, ci leneen di génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di jibi jóol nag ak ñeenti euh, ñooñ euh, ci li nga xam ne rek moom moo di njabootam mu mel ni nag li nga xam ne moom la l'enquête bi jot a fësal nag da doon coob rek doomi aadama ba taxitam itam général bu Sénégal ca New York ak itam jiit bu bokk moomeel bu Denver nag demoon nañ ca wowule barab ngir saytu mbir mu ni mel waaye tam li ñu xamle bokk na ci rek yoon ba baañ topp mbir moomee nag ba lu leen ci yoon may ñu daal di koy jël dañuy tooglu ki nga xam ne moom moo di Pape ja moom moo yoru kàdduk sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy dund ca Denver. doy waar la ndaxte euh, détective bi ñoom ne ñu jàpp nañu ay doomu aadama ñoo ñëw taal kër gi waaw waaye nag lu tax ñu def ko xamaguñ ko kan lañ doon topp xamaguñ ko waaye jàpp nañ ni ay doomu aadama ñoo ñëw sabablu pour def jéey bu mel nii ci doomu Sénégal yi. waaye itam consul général bi mu ñëwee dëfal nañu bàyyi na lépp lu mu doon def New York ñoo ne fi toog defal communauté bi wax leen ni lépp loo xam ne mooy yéene euh, famille bi euh, moom consul bi au nom du gouvernement sénégalais dina ci taxaw maire Denver Colorado ñëw na waxtaan na ak consul bi donc moom it yéeneem mooy dinañ toog mbir mi ba mu sës ba ñi nga xam ni ñoo def jéye ji dina leen jàpp yoon dina teg seen loxo donc li ñu leen mën a wax daal ci gàttal mooy la communauté sénégalaise ñi ngi fi la communauté africaine mi ngi fi la communauté américaine plus particulièrement la communauté noire américaine ñi ngi fi itam du dooleel sénégalais yi mbokk yi ñu wax euh, ci leneen fii ci réew bu Sénégal beneen tiis woo xamante ni daal dinay euh, dal suñu kaw di génnuk àddina euh, beneen nag njabootuk Baye ñas di Cheikh Mokhtar ñas nag kii le nag daal di génn àddina niki tey jii ci suba ci benn clinique boo xamante ni mi ngi fii moom mi leen nag doon koo xamante ni nag doomi Baye Niass la waaye lu mu ci mënti doon dañ ko jébbal boromam niki tey jii ci ajjuma ji bu 17 heures jotee maanaam maanaam euh, juróomi waxtu euh, foofe nga xam ne euh, moom moo di ca Medina Baye mbokk yi du ñàkk itam suñu yeneen jotaayu xibaar daan ci ñëw ni mu gën a yaatoo waaye ñu dem ba fa diwaan bu Sikicoor mu mel ni nag sullik néewuk ak ndaw boo xamante ni mi ngi am ci lu tollook ñaar fukki at ak juróom ñett nag mu mel ni nag ki nga xam ne moom moo def lu nu mel nag xam guñu ko waaye lu mu ci mënti doon nag lu nu mel jur na ab coow lu rëy ca diwaan bu Sikicoor dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di sous délégué bu quartier ba fa nag Boubacar Diassi ak Lamine ñoom ñoo taataan ay kàddu te li ñu gis fii musuñu ko gis déterrer un cadavre musuñu ko gis fii su sulli cadavre ah maanaam eh, génne néew musuñu ko gis ñun musuñu ko dund bu ma amee te nee naa j'ai cinquante quatre ans mais je n'ai jamais vécu ce genre de choses la bon ñu defee kii bi bon xamuñu leen parce que euh, on peut pas les situer bon clôture bi je crois que comme autorité yi ñëw nañu gis nañu euh, en même temps que nous je crois que maintenant l'heure a sonné Euh, parce que le maire est venu euh, avec euh, l'équipe je crois qu'ils vont terminer la clôture parce que clôture bi impérativement il faut clôture bi ñu égale ko ñu am gardien boo xam ne dina fi nekk tout le temps et puis aussi ñu limiter les heures de d'enterrement par exemple ñu ne bon heure sangam ou bien 18 heures ou bien 7 heures on arrête les enterrements mbokk yi ñu ñëw ci leneen loo xamante ni fan yëpp ñu ngi ko nemmeeku ak coow li nga xam ne moom moo ci am di yokkuk njëgu opérateur bi di orange Sonatel nag mu mel ni nag boobaak léegi ay plainte ñu ngi wéy di am ki nga xam ne moom moo tëddee njaaxaanaay di ARTP ci diggante ak ki nga xam ne moom moo di aji jëfandikoo bi ak itam opérateur bi di sàkku rek orange Sonatel daal di dakkal lu ni mel ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet atum 2020 ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, aji jëfandikoo yi mën a gis euh, seen bopp bu baax a baax euh, ci mbir mu ni mel cooy la jamono itam ki nga xam ne moom moo di Aliou Sané di coordonnateur bu mouvement bii di Y'en a nag lu mu bëgg moom moo di lile nag ñu daal di koy dakkal ila abada dañuy teewlu ay kaddoom cette décision dogma dëgg la aussi que team boycott orange bi ñu bokk ñun Y'en saisiroon nañu autorité bi pour wax ko ni mu some Orange à ce que mu annuler cette décision d'augmentation des prix euh, des Illimix surtout ci contexte mbas mi nga xamante ni gis nañu ni suñu économie bi c'est euh, fortement touchée et que sénégalais yi ñu ngi koy yëg pour la plupart ñu ngi ci ay difficultés donc que mënuñu comprendre société wu téléphonie bu implanté wu suñu réew di fi def ay bénéfices euh, annuels à hauteur de cent quatre-vingt-seize milliards mu tànn période boobu pour yokk ay prix di gën a doggali sénégalais yi donc lii nii nag ñun jàpp nañ ni jéego bu njëkk la ndax gis nañu sax ni ci communiqué bi Orange euh, ARTP euh, sursoir la wax waa ñun nag dañu buggoon mu doon lu définitif ndax mënuñu envisager que muy tey wala muy ëllëg ko Orange di yokk. prix wu Illimix yi nga xamante ni déjà c'est assez cher et que sénégalais yi consommateurs yi mënuñu di fixe di leen fixer ay prix di leen imposer ay prix yi nga xamante ni seeni mën-mën yeggu ci Sindian nag ca département bu Bignona la nekk foofee nag askan waa mer ba futt la ñu def li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen defaral seen ab xàll bokk na ci loo xamante ni nag ay diggé la woon yoo xamante ni njiitum réew bu senegal moom Macky sàll defoon na ko ci digganteem ak ñoom li ñu bëgg moom moo di diggé yooyu nga xam ne defoon na ko mu daldi koy jëfee dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo yoroon kàddu ko yooyu la ndaw Boubacar Diassi ak Lamine Mandia ñoom ñoo taataan ay kàddoom. département bi ñëpp ñu ngi fii parce que ku nekk am nga soxla fi si Sindian ci kaw loolu ñun yoon la ñuy laaj président de la république yoon yoon la ñuy laaj ñun suñu ambulance yi yàqu nañu suñu calendrier yi yàqu nañu tey évacuation maire yi famille c'est des problèmes ñun boo amee boo amee évacuation sur Bignona mooy égal dee ñun li ñuy laaj président de la république mooy mu defar ñu yoon parce que c'est le président de tous les sénégalais lii ñu def nii début la rek. dañuy commencé bu soobee yàlla ñu dégg ñun fu mu toll nii dañ taxaw dañu sës tekku sës mbëkk président na gëstu fooñi parce que élection bu jotee fee foo fooñi foo foo xalaat ci fooñi ni ñi dañ fay dem campagne foo dugg tey boo duggee ba frontière di nga fa fekk yëre président de la république di nga fa fekk flyers président de la république di nga fa fekk affiche président de la république waaye liggéey bu ñu ne sécurité liggéey bu jotee ñu ne insécurité ba kañ mu am dans la, dans, dans, dans, dans la répartition des choses, qu'il y ait équité des choses. loolu mbokk yi ku nekk xam na ne wàllu yoon ñoom daan doxee fii ci réew bu Sénégal doonatu ni nag bokk na ci coow li nga xam ne moom moo dox ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàll wi nag ak itam nguur bu Sénégal boobaak léegi gis ngeen ko noonu ñooñu nag bëgg yenn ci ay yoo xamante ni gouvernement bi sekkoon na ko ak ñoom itam ñu daal di koy rek jëfee waaye itam jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu yoon mu daal di rek gën a amal ab taxaw seetlu ci wowle secteur ba tax itam eh, ñenn ci ñoo xamante ni nag nekk nañ fi ak ak lefu doomu aadama yi nag bëgg indi ay saafara ci mbir mu ni mel lu ci mel ni LSDH RADDHO ak itam Amnesty eh, ñoom na nag luñ bëgg moom moo di saafara eh, daal di juddu ba tax itam lépp lu soxal wàllu yoon fii ci bu Sénégal ñu daal di koy baral waaye itam mu daal di am ci anam mu jaar yoon ba tax itam ku ci nekk ci askan wu Sénégal la nga bëgg rek ca woowule secteur nga daal di cay jotee ñu wax euh, ci leneen mbokk yi di coowal euh, ñetteelug euh, mandat ca réew bu Côte d'Ivoire ak itam ci république bu Guinée moom Alpha konde nag di sàkku di xam ne rek ne lu ni mel nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay militant wam ñoom ñoo ko sàkku ci moom ba tax itam mu bëgg sampat ndëndëm ci élection présidentielle yi nga xam ne na mun nañ ko fa amal lu ni mel itam tax ñu samp ab laaj ndax du indi ay coow am déet lu mu ci mënti doon Alioune Tine nag di fondateur bu Africa Jom Center daal ni ci indi ay tontu. ñu teewlu ci waxtaan woo xamante ni sekkoon na ko ak Ibou Diouf. coowal premier mandat ñu nemmeeku ko ci Afrique sowu jant rawatina ca Côte d'Ivoire ak itam ca Guinée ñooñu nag ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique di ragal rek mu indi réew yooyu ay jafe-jafe comme la ñu nemmeeku ca Côte d'Ivoire. nga xam ne mooy premier ministre am Amadou Gon Coulibaly nga xam ne moom moo waroon wuutu àdduna jóge na fi yaakaar naa ni ci biir Côte d'Ivoire mënoon nañ cee de façon démocratique. tànn ci kenn su ko defee li nga war xam ne moom wax na ko ba pare yàbbi ko mu bañ a dellu si ci wax lu mel noonu la ñuy ragal fi nga xamante ne mooy Guinée Conakry te foofee président Alpha Condé nee rek jël na ak ci li woote bi nga xamante ne convention du parti ñu ngi sàkku ci moom mu amal beneen mandat. Guinée it yàgg na feebar <laughs> wax naa leen ko temps wu Sékou ak temps yi nga xam ne mooy na Conté bu toujours ay coow ak ay fitna Isma Dadis. coow ak fitna foogoon nañ ni Alpha bu ñëwee dëgg-dëgg fitna di ak coow bi dina wàññeeku waaye dafa mel ni tey la ëpp donc guinéens ak west africains yi dañu bugg ak ak yelleef doomu aadama ñu koy respecté. ñaari njiitu réew yu Afrique sowu jànt di Côte d'Ivoire ak Guinée Conakry seen i njiitu réew bëgg ut beneen mandat ñu ne rek loolu day indiwaat coow li nga xam ne moo juddu woon ci candidature président Macky Sall. Euh, Macky dañu bokk xeex troisième mandat <laughs> wax te mu jël ci wàllam bu baax a baax léegi comme ne na président ame gouvernement am ne ah bugguma ku wax waxu troisième mandat mën naa ko comprendre parce que mën na indi ay coow ak loolu waaye baax na tamit euh, bu fekkee ne dafa bugg liggéey am lu mu namal Sénégal képp koo xam ne kii danga am ambition mu ne la génnal gouvernement bi nga dem préparer ji coowal troisième mandat dina faral di indi ay rëq-rëq ci wàllu politique ak wàllu nekkinu askan bi loolu nag yenn saa ñu koy amal gannaaw bu ñu modifier texte yi ñu ne nag afrig soxlawul loole jamono ji ndaxte daanaka jafe-jafe yi bëri na fi lool. jërëjëf Ibou Diouf cant ak ngërëm ñaanal la mbokk yi dañuy tàbbi ci leneen li li ci yéen kaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf am na beneen cas bu am ci corona bi bu bokkut ak cas contact mbaa cas communautaire cas bii cas de viol la l'observateur moo ko bind ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi benn xale bu jigéen bu toll ci ñaar fukki moom la ñu testé gis ne dafa corona ñu yóbboon ko ci centre de traitement bu nekk fii ci dëkk bi benn agent Croix-Rouge bu bokk ci agent yi ñu yóbbu ci sant de traitement yi ngir ñu taxaw malade yi ci l'hôtel yi ñu leen interné waa joojee la ñu ne moo ba centre ba wéet mu dem bi xale bu jigéen bi nekk yegg ci kaw xale bu jigéen bi violé ko xale bu jigéen bi ne ci enquête làmbatu ko ba mu yàgg mu forcé ko jaay ko doole tëdde ko ndaw si teg ci ne ba mu koy violé gant protection yi ñu leen jox ci la jël benn dagg ko def ko préservatif moom la ko violé ndax am naam amul l'observateur tax nañu li am te leer ñépp moo di agent croix rouge bi ba mu yéeg escalier yi di dem ca sambar ba ñu hospitalisé ndaw si ba na muy fëggee buntu bay dugg lépp caméra surveillance yu hôtel bi jël na ko moom waa ji nag weddi na tuumay viol yi ñu gàll ba mu yéeg ci néegu ndaw la ko doon may journal li des ci moomi le mbir yoon a koy leeral ji weesu juróomi fan ci weeru août te la ñu ko mandat dépôt ñu déposé coow loolee dëpp dem ci soleil national mi xëy dellu si ak ñun ci lu tukkee ci ndaje mu di réunion d'évaluation bi ñu doon def démb ca palais de la république te mu jëmoon ci xeex mbas bi journal bi nee nañu am na yeneeni dogal yu président de la république di nësër ngir jàmmaarlo ak corona bi président Macky Sall di wax ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne lii bu dakkul mën nañoo yegg ba teg ci réew mi ab état d'urgence localisé maanaam tànn barab yi coronavirus bi gën a wullee ñaay ci réew mi tëral fa état d'urgence ci presse ci moytu di askan wi ci jàngoro jamono ji ndax nu dimb dina tax dimba weex suur soi nañu Macky Sall amul lu ko neex ci traitement médiatique gi am ci woppi coronavirus gi ci Sénégal dem na ba mi ngi woo presse bi ci réew mi ngir ñu xool bu baax ni ñuy waxee ci corona bi ak lañu ñu cay wax ndax amul benn njariñ ñuy yóbbu yëfi fu mu yeggul baa ñuy yóbbu fitu nit ñi di leen tiital la Sénégal nañu état bi sampaat na ay barrière am te gi la yoon bëggul wopp si jéggi ko Macky Sall mi ko tekk las tegal ñu ci ne tekk na ci ne cérémonie levée du corps yi ñuy def ak xew yi ñuy organiser ay nit di fa dajaloo loolee moom in fokk dañu koy dakkal général Mame Thierno Dieng njiital principal bu ndakaaru di leeral ci la Sénégal ne bari ay malade yu faatoo ci hôpital principal ñi ci yëpp di ay kilifa diine ak i notable yu mag ci ay xew rawatina ci ay dëj fa la leen wàllee feebar bi feebar bi ak ni ci nit ñi tàmbalee seleng la ak di ci bàyyi li ku si du quotidien wax nañu ne président Macky mi ngi ciy sàkki pexe mi ngi findu askan wi ak di leen dànkaafu ci indiwaat état d'urgence ci réew mi li ci njiitu réew mi wax mi bu séqéb jéego jëm ca kanam ñëpp di ko tàcce ko baraawur mu séqiwaat yeneen ñaari jéego dellu gannaaw ginnaaw ab diir bu nit ñi dëkkee daw l'hôpital réew mi ndax coronavirus ba ñu fay dégg anki dina kay nee nañu la woon woon ni na gaañi tàmbaliwaat nañu jëlaat yoonu l'hôpital wi ngir dem faju ji li ci ñu rekk moo di toog bu yàgg bi ñu toog seen kër tax nañu bari ci ñoom bu ñu ñëw l'hôpital dañuy sonn lool li koy firndeel anki dina kay nañu moo di boo xam ne ñàkk dem rendez-vous hôpital jural na ko njombe ndax feebaram dem na ba yegg foo xam ne in fokk dañuy dagg ween wi ween xam ne jamono ji soxla nañu ku leen wàllu dëgg mu di jaaykati wata yi ndax mbas mi di coronavirus bi tax na seenub liggéey doxatul njaxte la ñu doon am dafa wàññeeku bu baax a baax ku baax ki fi bàyyeeko bu yàggul di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass radiallahu taala anhu yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu xamal ne denc nañu ko démb Sud Quotidien L'As Li Quotidien Soleil National Vox Populi Les Échos ak La Tribune ñoom ñëpp xëy dellu si ca rob Vox Populi nañu ñeenteelu xalifa bu Medina Baye mën nga tëdd léegi ca wetu baayam Baye Niass mbooloo mu takkoo ko gunge woon woon Medina Baye ak ni mu doon rirée démb photo bu koy firndeel mi ngi ci journal La Tribune yéenekaay bi boole koo kii kàdduy tàggatoo Orowar Baye Cheikh jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeel la mbokk yéen itam naka noonu foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar do dig daje bi ngoon incha allah daañ fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fi ci télévision Futur Média kenn dal ak jàmm